wa عمن مواهب لجملة الخلق ما يختار من برا ناجد جلا ومن وكرمني تقريما وكل لي من لخن بريد سليما قرآن خراب غن مدى مسامى عن كل مفسدات ودرام الخفايا من جدهم بدا غن مدى مسامى عن كل ما سدات ودرام لهم بدا يا مالك الملك يا من جل الخوالل ارحم جميع الورى يا دي الردى يا مالك kon ñun kenn mënut a mucc ay bàkkaar mm-hmm. te sëñ Tuubaa non seulement bu doon borom xam-xam kese sax mm-hmm. wax jooju dañ ko war a jàpp wax mm-hmm. koo xam ne gis ngeen ni mu demee ak suñu borom mm-hmm. ni mu demee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li ko gën a li gën a ñu bari ba ñi nga xam ne amuñu yaqin sax dañ koy contesté muy di gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay digal la teel foofu la eggoon na yoon mm-hmm. waaye nag ñi contesté loolu ñu jàpp ne xëy na seen seenu gëm yonent bi mu eggagul ci mën a àgg ci ci niveau boobu ndax yàlla dafa am fulla nag hmm? yàlla dafa am fulla ni nga tegoo ci naaj rek noonu ngay tàngee boo ci tegoo ay minutes yu ndaw ñëw ne ña fa ña fa yendu di jàmbat aw tàngaay ngi weddi ko day tekki seen ñàkk a maam suñ tubaab dundam yëpp yéen bu salaam salaam la ko jàmm lépp ni mu daan waxee ci moom jëfam ay doomam njabootam ci moom mi ngi gis yoon bu salaam mu koy jox ndigal sàngam di ko wax loo nangam ku ku ku ku baaxut rek moo koy sikk sàkk mba euh, euh, euh, ku bon rek moo koy weddi suñ tubaab tawféexi yàlla la kon moom bu ñu waxee nañu ñu gàmmu laabal ku amee bàkkaar loolu doomu jaroon na gàmmu ana gàmmu ay bàkkaar du caaxaan de ñu dugg ci bàmmeel yóbbaale ko xam nañ ne du caaxaan man wax ñu ne day tax a mucc ci nisaab nisaab du caaxaan de ndax am na ñoo xam ne ban faatoo ba léegi xisaaba fañ ne ci coono seeni mbokk yaakaar ne ñu ci jàmm tabax seeni bàmmeel rafetal ko ba mu rafet te ñu ne ci xisaab am na ñëwoon sax kenn tawaxu seen i bàmmeel waaye ñu ci xisaab la ci coon seen mbokk jàpp na ma ngay neex te ci xisaab la ñu ne ba tey mënuñu egg fa ñu jëm sëñ Tuubaa nee nañu dundal gàmmu day tax a mucc ci xisaab ñaar yii rek. su ci yemoon day jafe gàllankoor. nag yeneen yi ci def nga xam ne dañu ko bàyyi ba ca baasu rek. ndax ren jëluma décision waxtaan dama bëgg waxtaan yi woon ñu teg ko ma toog dégloondoo ak yéen. jàng xasaay ak yéen. su noppee kuy jàng jàng kuy def leneen rek. mooy yooyu mën a envoyé. yooyu a partagé waat. yi ñu nekkoon yi ma defoon daaw jéeg ak daaw. kon dañ ko jël nit ko. ñu mm-hmm. ci tawxiid laa laa ko def ñii ci julli ci yonent bi laa ko def ñett yooyu bu ci nekk fuñ ci nekk buñ ko jëlee day day mën a nit ñi dañ ci man a jëriñ waaw kon daal laa ci julli dafa wax dëgg li waxoon lañuy ñuy waxaat ñu fàttaliwaat ñu mel ni julli rek da nga koy jàng tàkkusaan ja nga julli woon démb ak bi nga julli tey ñooy fàttali rek lay def lenn lu bees amul ci ndax yàlla rek a wax ak yonent moo ko jot li li mu wax la wax pour jot leen wax li ci mooy waxi Sëñ Tuubaa la ñuy wax nit ñi parce que sëñ bi itteem jëpp ci àddina mooy ñot di nit ñi ñu jëm ci yàlla laakin mën mm. naa di kullal ibaadi ilaa imaadi bi laa jalaay mm. yaa ahla bari yaa ahla baxri fam juli bari bari saxaay mm. kon kooku woo nit ñi jëme ci yàlla rek moo doon liggéeyam amul leneen nit ñi nag ku leen woo jëme ci yàlla buñ demee ba xam ne ci dëgg nga ne ci yàlla nga leen jëme dañ lay far bëgg ci bëgg gin bëgg yàlla lañ lay far bëgg mm-hmm. moo tax ñu bari yaakaar ne gars yi dañoo bëgg yàlla ba koy bëgg suñ tubaab ba koy bokkaale ak yàlla fekk demeewul noonu mm-hmm. bëgg gin bëgg yàlla suñ tubaab dañu koo gën a bëgg ba noppi woo ñu jëme ñu ci yàlla mm-hmm. moo tax bëgg bëgg yàlla ñu bëgg ci suñ tubaab goo xam ne ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo yàlla bëgg gin bëgg suñ tubaab mënoo koo am ci ñun jëru sax li jëm يقود لي الباغي بك السول آمنا ومن بك يبقي النصر يا ذكري الجديد علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقي مجدا خالدا بك يمجدين أدخلا دون مفسدين لغير الدنيا تعد يا وهرام من وغاث هو من الذين على الدين حتى سلام ربنا الكريم يعلم ببدائي وتجي إليه ما من الدرر المسني أدعى مغلق القلوب خير خلقا عن القلوب يا الله يا مغلب القلوب خير خلقا عن القلوب يا الله يا مغلب القلوب خير خلقا عن القلوب يا الله يا مغلب القلوب Hari Guru Banal ñëpp duñ dara lépp yow la yow bu ku laal Serigne Touba gis nga ak foo mën a doon ak foo mën a bokk yàlla ak yéen tamit seen tubaab képp moo la ñor leneen ñor la ñu a yàgg a ñor 2000 te bu suñu toog si keefar nga ñu wax ñu leneen doon wax sax kon bu ñu dëgg rek yal naa fàttali barke Serigne Touba moom yàlla yàlla bi Serigne Touba képp yi li ñu ñaan ndam ndax li ñu defal la ñu kenn deful li ñu mos dañ li ñu mosal la ñu kenn mosul te du lenn nag lu yàlla ak yu ñu ak sa tubaab ba nga yéen bañ ne jar ba fu ñu mën ci dem ku wax mu xam li nga wax mooy lan ñu denc ak nit denc ay nax te lépp mbàkke yow la lépp yow la nag yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak seen mbokk ak képp ku la nga yéen Francis me. guddi gu tedd gii waaye waxtaan yëpp ñu jikkiwul ko ci bind Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul waaye jëloo li tam téere bi nga xam ne mooy Jazbul Xuluub la allaami uyuub sëriñ bi wax ci lu bari ci feeg jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fasal ci yéene tëdd waxtaan wi insha Allah عن وقتي xawaari yi nga xam ne feeñ na muy ay xabaar yoo xam ne feeñ na bi yonent bi salaa salaam feeñee jamono ñi ngi àggoon ci fi muy waxe ne wa kam xidaali suhubi tardan li ahli riyabi an samai axbaari nabi wa rajahu syaitani iblis ak ak kuréelam bu njëkk dañ daan yéeg di tegaloo ba ci asaman yi juróom ñaar di déglu xibaar yi nga xam ne moo war ci asamaan wàcc ci kaw suuf daanañ àgg ba franc lu mu néew néew nañuy wàcc indil ba njabar yi wax leen ko njabarkat yi bu boobaa bu fekkee loolee benn dëgg la seytaane yi dañ ci dolli juróom ñeenti fen bu ko defee ñu tasaare ko ci kaw suuf yàlla bàyyi leen ñuy wéy ci loolu ba ay saa bi yonent yalla Isa feeñee ñu dàkku leen ñeenti asamaan yu njëkk yi benn seytaane amatul accès ci ñeenti asamaan yi nga xam ñoo sës kon day mel ni asamaan si jot ak bi ci topp ak bi ci toppaat yenn ñetti asamaan yi rek la ñuy mën a yem ban fa di guddi nga xam ci la sallallahu alayhi wasallam tay jamono yàlla da leen a làkku ne leen léegi nag mayatuma leen benn asamaan ñetti asamaan yi leen mayoon sax nga xam ne ci ngeen mën a yem tey nag mayatuñ benn seytaane mu jegeñ benn asamaan ci xeeti asamaan yi di foraatu benn xibaar du ko yëg benn jabar nga xam ne yàlla daal di wax malaayika yi dañuy yor ay jum yoo xam ne jumi sabara la bépp seytaane boo xam ne yéeg na ci kaw asamaan si di jéem a diglu xibaar bu war a wàcc malaayka yi dañ lay sànni jum loolu la yàlla di wax ci suratul jinn innaa kunnaa naquudu minhaa maqaida lis-sam'i faman yastami' al-aana yajid lahu shihaban rasadaa nga xam ne ñoom jinne yi ci seen biir ñu toog nga waxtaan ñun ne daa am barab yoo xam ne fa lañ daan yéeg di déglu mais tey gis nañ ne képp koo xam ne dem na di déglu ay jubbi sa wala ñoo lay topp jub yooyu ñu leen doon sànni moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne guddi gi sallallahu alayhi wa sallam feeñee ci la leen yàlla dàqu bépp jinne boo xam ne jege na benn asamaan séenu ci guddi gi ngir leer bu rëy gi fekk mooy leeru garanti bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ngeen amoon ci guddi gu jënd gi ñu nekk tey ndax du ko bëgg bëgg yeewu dara yëngu mu yëngal naat bi dara yëngu sëñ Baye Sarr xool naat bi nekk na naat bu wàcc la bu liggéey sëñ Baye Sarr bàyyi ko fi ñëw ci kër gu mag gi daal di ko baax rek suñ ko baaxee ko Babacar Sarr ana sa gan dama la boole woon sëñ Baye Sarr ne ko moom de daa mel ni yàlla nga dikkee kam dogal la mbàkk suñ ko baaxee ko doxal woon ma naar yi ci dëkk bi képp ku fi dem naar ne ko dañu wusi ma. yu ne yéen a mboolem naar yi nekkoon njëriñ bi naan yëpp dajee ko yow suñu Tuubaa ni leen seen mbokkum naar moom mu ne daa wàccul liggéey ba bëgg ngeen dem taxawu xool leen kenn ci yéen mu jiite leen ngeen dem taxawu ko ngeen denc ko ci armée bi bi naan dajaloo ba dem denc ko ba noppi bi mu dikkaatee sëñ bi suñu Tuubaa moo ñu da ko Babacar Sarr sëñ Baysaan la ko Mbàkke ma ne ko xanaa a jote mu demee mu ne ko moom de bi ñuy tëdd bi ñu demee ba xiwlu ba def lépp li ñu war a def dama ko jékki ci lal bi ma tëddee ci lal bi ba noppi mu ne ma loo bëgg a bokkal man lal bi ma ne ko waaw mu ne ma loolu mën dara ak su ma toll ci yàlla ak daraja yi ma takk sëñ Mbaye Sane dafa ne ne ne ne nee na bi mu xëyee si mbay sax la si mbaa bi mu xëyee fajar nag ci laa julli fajar ba noppi bi dee ba jënd bi yëkkatu ko ma ne naa xool ki doon tukk woon su fekkee dafa am sëñ Tuubaa mu ñëw Babacar Sarr mu ne ma Mbàkke ma ne ko mbaa amul sikki ci ne naar bi li ma doon wax man na ko sëñ Mbay Sarr na teg mu ne ko bi nga xëttantee moom ci saasa la daal di wax yàlla suñu borom ne ko yebalul malakul mawti mu ñëw jël ruuxam waa ji ca saasa dana teg jël moom tàmbal ko sawar daanaka bu yàlla joxee ndigal mënagul mawti mënagul mawti di ñëw ci laay jël sa ruu yow Mbaye Sarr denc ko mënagul mawti bi ñëwee xool xool gisul sa ruu te mënta ñàkk ba ñëw bëgg mu yóbbu ruu naan moom. daanaka waaye naa kooku sa ruu la war a jël si Mbaye Sarr nee na ko nag muñam moomu la ko muñ mooy muñ bi nga xam ne moom la doon kenn nabi sallallahu alayhi wa sallam mu yadhaku bi tabassul sëriñ bi continué di wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa dalilul kullabu bayaduhu musarrabu محمد وحده وأنجل سورة سنة نينا قرأت أبصق لكل أمام يلتم صلى الله عليه وسلم نينا وين خايب عين حم خايب مغرق وين يولا إلحو نينا جمل ون جوخم من أهل دبلون وعمل برم بدلون وين جمل ون جوخم نيتم أنجل لون muy ku yaatu bët waaye jour a sam la woon muy ku rafet aw doxiin ku rafet aw xool daa di wax ne wajhuhu mudawwaru wa huwa xamiisun asmaru azharu wa huwa bahiim asmaru muraqqibun takallumi sëriñ bi ne jëmm la woon joo xam ne xar kanam dafa gudd ba la woon dafa moo woon jëmm la woon joo xam ne biir bi dafa wasoon dafa sewoon moom sallallahu alayhi wa sallam jëmm la woon joo xam ne ku taar la woon jëmm la woon joo xam ne lay weex ci bët ba daa weex tàll lay xonk ci bët lay ñuul ci bët ba daa ñuul kukku moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne li xam ne nag daa mel ni lu nu mooñe wurus ba boole weexaay ak xonqaay ci ab taar moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jëmm yoo xam ne ma daanee la foofu sëriñ bi nee na moom sëriñ Tuuba lépp lu mu am jumlatu naa ji wa midaadi والقلم حدية للمصطفى باب النعم سيد ماي نعم. مولى بن معم موسى مولى بن معم موسى مدام مولى بن معم موسى ماي أقلام موسى ماي خليفة سيد ماي نعم. نبينا نعم. نبينا ويحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم nga xam ne yeneen bi salaa salaam sëñ tuba bi ko bëggoon ma yëg ci moom tàgg ma daa wax ne xaddi wi xaayatu léegi ci li la mujj tabaar an sawkati wa maydaha aqaba koo xam ne bi ñu ne ma du waxtaan samp naa ci moom dafa faaw mu def discours boo xam ne li ma bàyyi mooy message boo xam ne euh, dina gën a amalaan njëriñ taalibe yi dina leen jural lu bari ndax moom waxam joor yi wax na ko léegi kuy déglu internet bi ak di ko siitu li nga xam ne soldaaru Sëriñ Tuubaa la boo xam ne yoon wi rek boo ko ñëw suñ laalee yoon wi jóg nga taxaw mu jëlee wàcc ci mbedd bi wàcc ci mbedd bi mu jëlee def ab vidéo mu dem ab vidéo lépp loolu laal ci yoon lu nekk di nga gis ne position yëpp da koy jël te loolu dara war na ko lu may ak bëgg sëñ Tuubaa ak bëgg liggéeyal maamam ak ñi muy engagement loolu nag dañ koo soxla ci kilifa bu mën di loolu mooy ngay jël sa position te lu mën di xew te moom gis nañ taxawaay boobu ci kon loolu koy ziar. te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te defal ko ak wér te kattanal ko ba mission bii muy liggéeyal maamam borom daaru Xaadimu Rasuul màggale ko fa mu ko bëgg a àggale dafa muy gënal maamam ci barke borom bu baax di jaara Cheikh Moustapha ak Cheikh Mamadou Bassir te di leen jox seen wàccuwaay bu baax ñoom it di leen ñaanal yàlla mission yi ñu nekk suñ borom kattanal leen ci dëgëral leen man àggale ko ba nga xamante ne ji foofa nekk seen maam ndax ay jàmbaar lañ ci yoon wi sax lañ ci yoon wi tiital lañ ci yoon wi ndax léeg-léeg may koso ci téléphone bi ko wax ne ko ceeb a ku nekk sànni Mbàkke te am foo koy dese ci liggéey ko mën ngaa takkaat sa bagage dem ndax terrain yi dañoo soxla ay kenn waru leen cee jiitu ñoom nag ñu bu mucc ayib yàlla leen si yàlla kattanal te dëgëral leen ci barke Sëñ Tuubaa kon ñoo yi di jaajëfal ñëpp. di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp ci barke Xaadimu Rasuul di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh بما نعنيت صومي doon àjjana sax dugg sëriñ nee na ku ci nekk sa bëgg yàlla war naa tax maanaam mbooloo mu dajaloo di tudd yàlla nga ji di gis yéen gënte sëriñ bi nee rek loolu lay yëkki seen seen jëm yi ak sikar si nee na sikar si ko lool nee na sikar si yëg na ko lool nee yàlla nañ ko yàgg def te yàlla yàgg koo nangu ci darajee xaadim rasul darajee borom bis bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ne na xam na ne gannaaw kii la nee na day bëgg ñëpp kenn bañ a def orbas ñëpp dellu toog ci biir nee na sëriñ bi mu jox ñu tuuti rek ginnaaw waxtaan wi nga xamante ni sëriñ Mbay Mbàkke mii nga xam moo ko doon dégg nee moom defal na ko lu ci war yépp ndax waxi Sëriñ Tuubaa la wax jàngal nañu melokaanu yonent bi jàngal ñu la ñu nettal nee na dégg ngeen Sëriñ Tuubaa dafa soppee woon yonent bi foo xamante ni sopp fa yonent bi dafa jafewoon أسوري خلق والأهل أن يتفرع بمدح الذي عنهم مديهم خسير nee na ana kan la fi bëgg yonent bi mës a tas kër day laajte nee na ana ndax mës ngeen a gis koo xamante ni bëgg yonent bi tax nañu tas mel na ko Serigne Touba nee na moom moo ko bind si xasida ak asiru bu suur yi loolu mooy kër gi kenn nekkatu fi samay kër kenn nekkatu fi wal ahlu anni tafarra njaboot bi tàqalikoo ak man lu ko waral bi mat xel lazi anul madiyu xasiyu ci tagg yonent bi bi nga xamante mbubbum tagg moo ko solal mu gàtt ci moom nee na rasulillahi noo ko taggee rek bis bi sëriñ bi moo nu jàngal ni ñu koy soppee ak ni koy taxaw sëriñ bi nee na ngeen tàmbalee fële ñëw am na yoo xam ne baax ci busu busu lool waaw na am na ci yoo xam moom busu busu yi baax na si ñoom nee baax na si Bakunda yi daal nee na na yaatu rek ndax guddi ngeen ko tax a jóg sëriñ bi nee na na ngeen xam ni seen maanaam xolam set na lool. nee na li ko a neex mooy baat bi taxoon yonent bi di woote nee na moom lañ ko tertoo ànd ak moom ba fii bi mu ñëwee fii tam ngeen gën koo dëgëral wane si diin nee na bi ngeen di indi xéwal yi noonee loolu nag moom fu mu doy dara du la xam ne daa indi gëmul ñaxu tooy xet ak pas-pas bëgg yàlla tudd yàlla indi xéewal tam jox jaamu yàlla yi loolu ku doy nag dara du doy nee na moo na si loolu sëriñ bi nee na ngi ñaan suñu borom ak ngi ñaan suñu borom mucc mbugalam nee na ñoo ngi ñaan suñu borom ñun ñep ñu laq ngërëmam nee suñu borom dara diru ko nee na dafa baax sax di ñaan ñu jëkkal ñoom ñaan du doy waaye gàmm ku ko def yalla dañ lay jëkkal suñu Tuuba moo ko wa tuurisi taxasumi la kon nag sëriñ bi nee na dafa bëgg yéen ñii ngeen egg toog nee na mu wax ak yéen kàddu yu baax suñu ngir nee na ñu fàttali ko waat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw leen góor nee na foofu laay toog nay teewlu laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te di ko waxee noonu. ba li des ci xadrati ay yaxduruun mbokk yi teew ci jotaay bi góor jigéen mag ak ndaw maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen nuyoo ba yenn ci moom di nuyu waa Géejawaay yëpp di nuyu ñi nga xam ne dañoo bàyyeekoo feneen fu Géejawaay ñëpp ndax am na ñuy may wax ni ña nga bàyyi koo ba Gàmbi ku ci mel ni maam Thierno moomu am na ñu bàyyi koo ba Kébémer ku ci mel am na ñu bàyyi koo ba Touba ku ci mel ni Ndeye Soxna Faye am ñu bàyyi koo ba Louga ci mel ni Khadim Niang ak waa Ismaïla Dar am di ko yeneen barab yu bari di bokkul fii ci biir Dakar loolu nag may woon bu baax a baax seen cofee ci Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam seen cofeel ci sama liggéey ci euh, mawlidu nabi mawlidu nabi euh, yàgg nañ ko maag yéen ñuy sant suñu borom ci tawféex ji ñu ciy defal ak sutura si ñu ciy defal boobu ba léegi kenn ku nekk ci yéen maa ngi ñaan mu jàngal ma ñetti lixlaas ñu yéene ko mbooleem jullit yi nekk barzak te daan gàmmoo ak fuñ masa gàmmoo rawatina ñi nga xam ni dañ daan gàmmoo fii te daan ko ànd ak ñun rawatina ñi nga xam ne dañu amee woon pasteeku ànd ko ak ñun ci seen koom-koom ak ci seen jëmm tudd nañ ci léegi ñi nga xam ne bis bi mënu leen a fàtte dañ cee marqué ay empreinte lu ci mel ni suñu maam yi nga xam ne ñoo sañtoon fii nga xam ne su yàlla dogalee suñu jëmm yi di dundal li tey ñoom la tàmbalee ko ci suñu maam Alaaji Cheikh Ndiaye suñu maam Mati Diop suñu maam Fatou Gueye nga xam ne moom yéen maase ngeen xam ne moo njëkk a defar bernde di jëm ci gàmm soxna Jabu Ndiaye xam ngeen ko lu ngeen masaan ci gàmm gi ci këram ngeen ko daan toggee kon ñooñu ci gàmm bis bi munu leen a fàtte tax na ñoom ak mboolem ñi bokkoon ci diwaan bi defaat ko xam ngeen bu baax gis ngeen Babacar Diagne noonu la daan àndee ak yéen sécurité bi ci lii Babacar ma ca des Pala ba ak Ndiaye ku ci ne rek xam ngeen nan la seexoon ak euh, bâche bi lan la seexoon ak mbooloo bi ci ànd ñoom ci liggéeyal yàlla kon bu ñu nekkee barsax faaw ñu fàttaliku leen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 kon ma nuyuwaat leen euh, ginnaaw bu nu ñaanalee ñi nekk barsax ma nuyu ñi fi teew it tuddal nañ ma ñëpp su ma ko mayee rek ma profitoo xam naa ne waxoon naa jëwriñ yi ne leen ren ñëwuma pour waxtaan waxtaan bi damay bàyyi nit lay mbàggee mu def ko doy na sëkkit ndax xam-xam la fi génne te waxi sëriñ bi la fi waxtaane te waxin wi leer na sell na itam muy nuyu suñu waajur yi toog suñ ma mayee ma cité suñu waajur soxna Ndeye mu yóbbaale ñëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bokki deret yi bu ñu nuyoo soxna aji Tamba yi toog mu yóbbaale mbooleem ñi nga xam ne suñuy waajur la yu nekk fii ñi ñu xam ne gën naa leen ci biir nuyu boobu lii sama yéene mooy ku ci nekk ma tuddal la son bopp wante bu ma ko defee tant bi si la fajar di di jot te dama pare dara lu lu ñu jëriñoo bu génn ci loolu it ma nuyu sëñ Bayla Njaay xam ngeen ko diggante ma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day mbokkam ko li maamam ci Moustapha ñu nii moom xam nañ leen ko bu baax sama rakk la yàgg na noo ànd bis di taalibe Serigne Abdoul Karim ak ñi may seet noonu Modou ak ñi fi nekk ñëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ko teel di di sant yàlla bu baax a baax nag moom mi nga xam ne moo ñu dimbali mayaat ñu ci baaxam ak yërmandeem ba ñu fekkewaat waye di sant mbooleem diwaan mu topp sama dara yi tàmbalee ko ca ña ña tambali won basi yi ñi doon togg ba ci sécurité bi ñi doon zikkar koor yi diwaan bi yeb seen yi diwaan bi yeb ba ngi yëkkati kaddu cant di leen ko sant ci lo xamne ne ñun ñëpp ñoo mangé war a santante ndax yàlla dimbali nañu war a bokk jéem liggéeyal yalla kon loolu maa ngi leen ci sant di sant waajur yi mbooloo mi ñi ci teew yi kàddu mën naa bañ a gudd ndax lu ñu yàgg def la lu ngeen xam la mooy waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa ngeen concentré wu ba ku ci yore téléphone mbaa muy wax ak moromam mbaa muy def leneen mu may ma nopp déglu ma ma waxtaan ak yéen lu ñuy fàttali yoon sallallahu alayhi ngeen mën koo yóbbaale ñi nekk ci biti baas bi ñi nekk ci biir baas bi képp ku ci nekk di wax mu noppi mu déglu ndax bu ñuy waxtaanee ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc te ñu baax ñëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi moo leen amal tuuti ci mbaaxam ñu séddale leen ko ndax Serigne Touba wax na ko. min ustaara al urru kulla man khaba sang yëpp ci yonent sallallahu alaihi wasallam rek abbe jikko yu ba yi ñu leen nawé kon ku mel nonu buñ ko waré waxtané war war ko fatali képp ku fa tew war nga déglu bu ba su ngeen déggee alquran yalla di wax ni wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun su ñuy alquran da ngeen ko déglu da ngeen def al istima maanaam déglu waaye da ngeen def wa ansitu mooy da ngeen ni jell dara ba ñu yëngu laallakum turhamun ndax ngeen am yërmande te alquran yonent sallallahu alayhi wasallam sayyiduna Aïsa bi ñu ko kan moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ne xuluquhu alquranu ay jikko alquran kon ñi ngi koo xam ne texte boo fekk ci biir alxuraan muy wax ku baax texte boo fekk ci biir alxuraan muy wax jikko ju baax xamal ne jikko joojee yonent salaas la amee woon na texte boo fekk ci alxuraan muy ŋàññi ku bon maam muy ŋàññi ñu xamal ne jikko joojee yonent salaas la amee wu woon te da yonent bi sallallahu bari xam nañu sëriñ bi bind na xasida bu ñuy wax duru samin fi salaatu ala nabi lamin ci biir xasida boobu am na benn salaatu ala nabi bu fa nekk boo xam ni lu mu gudd gudd gudd tollul tollul ni xasida wa kaana xaqan salaatu ala nabi boobu matul tollul ni wa kaana xaqan te sëriñ bi wax na ca ne boo ko jàngee benn yoon ñett li nañ ne boo ko jàngee mel ni ku jàng téere bi ñaari junni moom dara ilul xayraat dara ilul xayraat mu nekk téere boo xam ne dinañ ko wax dara ilul xayraat di ko wax sawaariqul anwaar fi salaat ala nabil muxtaar ki ko bind nekk ku ñuy wax abdullahi ibnu muhammad ibnu abdurahman ibnu abi bakar suleyman al juzuli moom al ab xasan yi la shérif la lu jiitu ay siècle ci kanam bëri na ñu daan julli ci Yonent bi sallam julli yi doon def yi ci ëpp fii la jógewoon ba ci salaatu saxaada bi ngeen doon jàng léegi muy allahumma salli ala sayyidina muhammadin adada ma fi ilmillah salaatan daimatan bi dawam mulkillah salaatu boobu mu ngi jóge ci téere bii di dalaa'ilul xayraat nga xam ne téere bi lu mu ndaw ndaw am na ci àdduna bi lu mat ñetti téeméeri ak yu lu tegal ëpp na ko sax ëpp na 300 ans ci kaw monde kon julli ci yonent bi sam ay importance am ak ay njëriñam moom la borom Dalaa'ilul Xayraat ci jée introduction Dalaa'ilul Xayraat pour xamal la li ngay waaj a def yow lan la importance su julli ci sallallahu alayhi wa sallam ma fàttali bu mel ne mag mu ñu wax Baye Baye Diané yal na ko yàlla dolli ay leer xuru la nekkoon sëñ Baye Jaxate moo ko yar wax na ma ni ma Serigne Touba xàmmee woon naa ko sax man kon gis la Serigne bi wax na ma ni ma bi Serigne bi di dellu Touba maanaam li ñu waxee ne làqu na ci zahir bay dellu Touba fàttewuma ci dara mos nañoo. am am jataay di waxtaan ci julli ci yonent sallallahu alayhi mu nekk li ma ne ma am na am na benn wàlli yu boo xam ne dafa amoon armeel yoo xam ne su borom da leen a jéppi woon ci seen melokaan ba tax dafa defoon tàkkusaan ju jot day am niiru mbugal wu ñëw ba tiim leen moom la malayka yi di xàmmee ni ñii dañ leen a war a mbugal ñu mbugal leen ba tàkkusaan ja delsi weneen niir ñëwaat te def nañ ko ay atti atti atti at ñu leen ci mbugal benn wàllu yu moo dugg ci armeel ya di ziyaare ji ña ca xabru ya pour ñaanal leen dugg ci armeel ya xelam dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jékki-jékki ne salli ala muhammad nee na waxul sax sayyidi dafa sàllal yonent sallallahu ne rabbi salli ala muhammad yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na kàddu googu di ko wëlli yu woo waaye saa si tombeeg am na niir wuy ñëwaat pour mbugal si ña su borom dafa digal malaaka yi ne ñu dab ñooñu bu ñu yem ne leen bis ni ci tey ndax armée dañ faa sama xarit bi sama soppe bi nga xam ne maa ko bëggal sama bopp muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di suñu borom ya fa mbugale suñu borom nee sant na leen. waxtu tàkkusaan saa yu jotatee lañ fa yóbbu teranga yu toll ni mbugal leen fa laa yóbbu ba ba saa di taxaw lan rek ne yaa yàlla julli ci yontu sallallahu alayhi wasallam moom rek mooy jaamu yàlla boo xam ne permettre na la nga ñàkk a laab sax te amoo pexe am sañ-sañu julli ci yonent salaam salaam xale góor ak jigéen ñépp ko mën julli ci yonent salaam salaam yàlla moo ñu ko digal mooy jaamu yàlla goo xam ne yàlla dañu ko digal ba noppi di ko def inna allaha wa malaikatahu yàlla ak i malaakaam yusalluuna ala nabi dañuy julli ci yonent bi salaam salaam yàlla moo ko ci alquran yalla ak malaka malaakaam dañuy julli ci yonent bi ya ayyuha allazina amanu yeen ni gëm yalla ak yonent salaa salaam sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci mom ci sëlmal ci mom nga am ne julli ci yonent bi benn yoon ci sa dund farata la ku dund ba faatu te musta julli ci yonent bi sallallahu alayhi salaam benn yoon ëllëg yalla daf koy laaj ñu mu koy laajee julli farata benn yoon bi mom c'est obligatoire leneen lu ci des nag da ngaa volontaire di ko def ngir li nga ci xam ak li li li nga sopp yoon salaatu la kon ngeen bàyyi xel ne julli ci yonent bi salaatu la benn yoon ci àddina farata la kenn amul droit nekk julli di di foofu ndax yàlla da fi'lul amri la sallu alayhi wa sallimu taslima léegi nag yàlla li nu ko digal dafa am ñaar yoo xam ne mën naa suuraale yàlla buur la boo xam ne duñu ne day jaamu boppam de wante yàlla ñëwam xam nga xam nga nit ñi ngi jub te juboo dafa bari comme sama galas yàlla nag moom eh, dafay diglee jub ba noppi moom dafa jub ba noppi lu muy diglee da da ciy jiitu bi mu diglee pour ñu kennal ko da ciy jiitu wax ne shahidallahu annahu yàlla seedeel na boppam ne amul buur bu moom dugg ci biir alxuraan mu ne faalam annahu laa ilaha illa allah ولم سورة الحاسمة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله يمجدك الذي لا إله إلا هو يرجع إنني أنا الله لا إله إلا أنا قعدنا إيه؟ بمن نعم نعم نعم ما كنا كنا كده شيء جيتون بابم lu ko waral bu fekkoon dafa nekk ku am soxna ba pare ne leen kennal leen ma moom bu boobaa day ami doom wante fexe na ba nanguwuta am soxla nanguwuta ami doom bokkul soxla bokkul kon kennal boppam moo ci jiitu jaam ñu ko sax kon solo li ëpp solo muy kennal yàlla da koo digle moo ci jiitu bopp moo ci jiitu ñëpp <coughs> ginnaaw bu taw nit jàllee ak jaamu si borom li ci topp salaatu ala nabi moo ci topp de Sëriñ Tuubaa moo ko bind <coughs> dane wa afdalul aqwaali fil maraami kalimata shahaadatil islaam ñaari baati seede yi ñoo gën ci lépp lu nit di wax ci aw làmme te loolu yonent bi waxoon na ko wax ne afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min xabli la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu kàddu gi gën ci kàddu yi mës a génne ci sama làmme kàddu gi gën ci kàddu yi gën a yi mës a génne ci làmme ñi yonent yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika la amul buur bu dul yàlla yàlla kenn la bokkul su jàllee sëñ bi la caa teg ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gën a màgg nee na ginnaaw bu farda ci jàllee mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah looy jaamooti yàlla ginnaaw looy jaamooti yàlla rek julli ci saa su la moo gën a màgg kon ñu dugg tuuti ci julli ci mu ne dañuy nekk li mas naa ñëw jëm si ci mbooloo mi ñi ko miin ñëpp xam ne xar kanamam dafa ànd ak mbégte bi mu ñëwee ne Seydina Jibril dafa ñëw ci man ne ma yow Muhammad xanaa d'accord xanaa kontaanoo wala gërëmoo ci ne yàlla nee na kenn du julli ci sa xeet bi ci yow benn julli lu dul ne moom yàlla dina julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow yow jaam bi ndax seen ab njëriñ bu baax mooy julli ci yow ana fan la yàlla waxee ne boo taree kaamil bi ma julli ci yow kooku ko fenn de te te dane boo jullee ci yonant bi sallallahu alayhi benn yoon man yàlla ma julli ci yow fukki yoon ndax jàpp ngeen ne yàlla dana julli ci benn jaam fukki yoon jaam ba di dem sawara di ngeen ci xam dara ci kanam tuuti nee na da caa teg ne ko wala yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alayka asra nee na ku ne allahumma salli bu ko waxee benn yoon nee fukki yoon laay julli ci moom man yàlla waaye bu ne wa sallim bu ne allahumma sallim bu ko fukki yoon it nee na fukki yoon laa koy ci moom fukki yooni yàlla fukki yooni yàlla da ngay da ngay xalaataan bu baax dóor day tolloo doole yi ki ko dégg ngeen mooy ma jullit yàlla dafa foor dóor day tolloog doolay tur ko dóor mu ne yonentu salaa sam nee na ki gën a yey ci man yowmal xiyaam mooy ki gën a bari lu muy julli ci man inna awla aw inna awla naasi bi aksaroom alayhi salaata ki gën a yey ci man ci nit ñi mooy ki leen gën a bari lu muy julli ci man وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلى عليه الملائكة ما دام يصلي عليه فليقلل عند ذلك أو ليكسر لأن من قال محمد صلى الله عليه وسلم كجل من ملائكة يدقي جل يوم قبر الباقة توتر وقال له لمن نعم نعم, يعني هي الله بمخزي جل يوم وهو اللي يوم té fofu am na benn sew sew bu bu doy waar bu fi ne yàlla dañoo yéene wante nit ku ne daa am lu yoron sa sallam manqué ba yàlla ne moom mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu malaaka yi julli wutoon sax doy na waaye moom day julli ci moom malaaka yi di julli ci moom te it dafa ne ku julli ci moom man yàlla damay julli ci yow ba noppi malaaka yi dañuy julli ci yow kon li yàlla ak i malaakaam di defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo ci bëggee am da ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est facile kon ku mu ne yàlla day man ak ci malaakaam ku ko mën ndax yàlla moo ne yonent sallallahu alayhi wasallam moo ne ku yoon yàlla julli ci yow. mu ne yonent sallallahu alayhi nee na da bari lu mooy lu ngeen di julli ci man ak ajjuma yéen sama xeer bi mu ne yonent sallallahu nee na képp ku julli ci man ci sama xeer bi genn julli. yàlla dana ko bindal fukki tuyaaba effacé ko fukki ñaawteef yoo xam ne moo ko def kon da nga ci gis ne boo gën a bari julli ci Yonent bi la day mel ni da yore sa benn boros fekk sa tilim di boros muy gën di rek ci day ndànk-ndànk ku la gën a bari la moo la gën a mën a set ci ay bàkkaar bu ko defee kon diir boo nar a toog rek di ko waxtaane si bés jàmbur allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne dégg na ak noddu wala liqam mu wax ne allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima alqa'ima al muhammadin alwasilata walfadilata wab'athu almaqama almahmud alladhi wa'adtahu wa'adtu alladhi wa'adtahu halat lahu shafa'ati yawm alqiyamah loolu ma wax léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku dégg liqaam nga wax ko wala nga dégg nodd nga wax ko nee na kooku moom yombal xiyaam dina ko ràmm lu yomb la saa yu noddee nga wax ko mu ne képp koo xam ne bind na ab téere maanaam moo xam ab livre am la wala dara mu mu muy bindu téere bindaale sama tur ca téere ba fii léegi sama tur woowee mu bind ca téere ba julli ci man ma nga ca malaayka yi dañuy julli ci moom moom la ko def mu ne Abu Suleymaan ad-Daraaniyu nee na ku bëgg boo ñaanee yàlla mu nangu ko na nga ubbee julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ba noppi ñaan la nga bëgg te tëjee waat ko julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ñaan ci wax ne képp ku julli ci man bisub àjjuma téeméeri yoon yàlla dana ko jéggal bàkkaar yi juróom-ñaar juróom juróom-ñett fukki at ajjuma nga julli ci yonent bi salaa sallam cent fois allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatiha wala allahuma salli ala sayyidina muhammadin abdama fi millahi salatan daimatan daa mulki la nee na nga koy def téeméeri yoon bu doon da ngaa dund ba am quatre-vingts ans ajjuma jot nga def ko quatre-vingts ans yi passé woon yëpp yàlla nee na effacé na ñaawte bi nga ci defoon soo wàcc na ku amagul loolu mu ni moom Abu Hurayra mu ni yonent bi sallallahu am ak leer buy jéggi siraat te ku am ak leer buy ci ran dana muccu ci sawara du bokku ci wa sawara mu ne yonent bi salaa sallam ku fatte julli ci man dal nana la leer fatte fàtte nga yoonu àjjana man nasiya salata alayya faqad aqta tariq al janna ku fatte julli ci man fatte nga yoonu àjjana wala nga reele mu ne yonent bi salaa sallam nee na jibril na ci man ne ma yow Muhammad laa yusalli alayka ahadun illa salla alayhi sab'una alfa malakin wa man sallat alayhi almalaikatu kaana min ahlil janna li nga wax ji dana jibril ñëw na ne ma yàlla nee na yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy julli ci yow dul ne soixante-dix mille malaaka dañuy jullee doo ci moom ci saasi saasi te ku malaaka yi julli ci moom mu bokk ci waa àjjana ku malaaka yi julli ci moom la wax de waa ku yàlla julli ci moom la ca départ yàlla ne woon boo defee benn ci moom ma def fukk ci yow c'est comme 70 000 malaaka yooyu la ne bu ñu jullee ci yow doo dem doo dem sawar kon ki yàlla julli ci moom. foofu la aarifoona billaahi yi rawee ñu bare bare bare mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salla alayya asra marratin sallallahu alayhi mi'a ku julli ci man fukk yàlla julli ci moom téeméer wa man salla alayhi mi'ata maratin sallallahu alayhi alf mara ku julli ci man téeméer yàlla julli ci moom junni yoon wa man salla alayhi alfa maratin harrama allahu jasadahu ku julli ci man junni yoon yàlla araamal aw yaramam safara du fa dem Hmm? te dégg ngeen bu yàggutoo jaay am ay ñoo xam ne ña ci ginnaaw internet ba laaxatu ci ay ruq di di di di di di wax wax ju ñaaw jëmale ko ci yoonu murit di wax ne yoonu bi daal yoonu bokkaale la bu ñu faatoo dañuy dem sawar te ñu bokk ci yoon yi dàq julli ci yonent bi sallallahu alayhi la sallam yoon yi dàq wax laa ilaha illallah te yéen sallallahu alayhi wa sallam man xaala laa ilaha illallah ku wax laa ilaha illallah da nga a àjjana ku julli ci moom junni di nga dem sa àjjana sa yaram araam na sawar yonent bi salaa salaam moo ko wax ah ndax li yonent bi salaa salaam wax seen yéene jooju ñoom da koo mën a effacé ba hmm? ñuy wax ne nitu tasawuf nitu bidaa lañ dañuy dem sawar sawar lañ yéene nitu tasawuf waaye yàlla yéene na leen àjjana ndax nitu tasawuf ñoo fi dàq julli ci yonent bi salaam muy muy tarix yi yëpp nag saa yu takkusaan jotee nga dégg suñu mbokki tijaan yi ñuy yëkkati alfaatiha limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa foo romb murid yi fekk leen ñu yor seen i ak ay xasaay yoo xam ne salaatu ala nabi la fees dell ak waxi Sëriñ Tuubaa mbooloo bu toll noonu ku leen considéré waa Samara xamoo daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku wax ne ñooñu dañuy dem Sawara sa wax dafa wuuteeg waxi yonent bi sallallahu alayhi wa lan moo la leer ne jiw julli na ci ci yonent bi junni yoon waxuma la xale yu ndaw yi yu mujj yi waaye mag ñi ñi ma ci tarbiya ñu miin ma ak ñi may waxee ñoom ci tur yàlla ak ñi ciy doxee ma ak ñoom yàgg naa leen a zikkarloo ay douze mille laa ilaha illallah ak lu ko salaatu ala nabi lu nekk ay yoon yoon ci laa dëkk bañ naa ko ba sax fi mu ne bu ñu xamoon ne bu ma ci gis te gisuma la nga yor kurus léeg-léeg damay xaw a mer parce que damay xalaat ne yow aussi tudd yàlla bariwul damay bëgg fu ma la gis nga yor sa tuddukaayu yàlla di tudd yàlla sans complexe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ci man junni yoon yaramam araam na sawara te yàlla dana ko saxalal ci xawlu saabit fil xayaati dunia wa fil axira indal masalati buñ koy laaj ci bàmmeel wala fa ñuy laaj yowmal qiyaam luñ ko laaj day teew ci xelam te day ànd ak stabilité ak dal mën a tontu tontu yu correct ndax julli bi mu doon julli ci man loolu yàlla moo ma ko defal man Muhammad sallallahu sallam moom moo ko wax nee na te julleem yooyu noonu dañuy ñëw yow yombal xëyam nekk ay leer yu koy gunge ci siraat dinañ ko gunge doxu juróomi téeméeri at ci ay leer maanaam distance boo xam ne nii 500 ans la ko waroon a traversé dinañ ko éclairer distance boobu yëpp ci julli bi ñu doon jur ci yoon financé distance boo war a traversé ci 500 ans su fekkoon ne dañ lay wutal ay lumière. bu fekkoon ne addina la ah da nga sonn de 500 ans xorondoom bu fekkoon deewul ci 500 ans yi nga bàyyi ko muy dox te noppalu lu mu ndaw ndaw ndaw dana ci dox ay junni kilomètre 500 ans donc bu lu ndaw te nee bu noppee yàlla jépp julli koo julli woon ci man dana la ci jox kër gu rëy ci àjjana. نينا na ريك دا بارين baril اك ga ak nga néewal ko ci yem lu sa julli toll ci man ni la من يمتلك من ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريس في كل ريس سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان كل لسان يسبح الله بسبعين ألف لغة ويكتب الله له صواب ذلك كله له من ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا نعم. amul benn jaam buy julli ci man lu dul ne bu julli nga génnee ci gémmiñam day daal gaaw lool du romb jéeri ji du day romb du romb géej gi du romb jéeri bi mbaa sow bi lu dul ne moom julli ga day wax di naan man maay julli doomi diw ak diw daa julli ci Muhammadul Muxtaar ngën ji mbindeefum yàlla bi nee na bu boobaa falaa yabqaa illaa wa salla alayhi nga xam ak nga ñàkk xam nee na wa yaxluqu min tilka salaati taa'iratan nee na ci julli googu suñu borom da cay bind am picc moo xam ne nee na picc juróom-ñaar fukki junniy laaf la laax mu ci nekk nee na am na juróom-ñaar fukki junniy donc dégg nga nee na moomu juróom-ñaar fukki junniy xar kanam la am xar kanam bu ci ne juróom-ñaar fukki junniy gémmiñ la am gémmiñ bu ci la ci ne day sàbbaal yàlla ci soixante-dix mille langues yu bokkul. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعه 100 مره جاء يوم القيامه ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم ولا تنظر Seydina Ali ibn Abi Talib nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma wax ne ma ku julli ci man ku julli ci man àjjuma téeméeri julli téeméeri julli waaw nee na boo julli ci man àjjuma xeex boo xam ne bu ñu ko séddale woon mu mu mu mu mu ëpp 印度。 تخفف الغموم هموم والغموم والكروب وتكسر الأرزاق وتقضي الحوائج yonent bi salaa salaam nee na ko am aajo te bëgg mu faju na nga bari looy julli ci man ndax day dindi njàqare day dindi jaaxle day dindi kar bi tekki njàqare lu tar te julli ci man day bari lu wërsëg te day faj aajo waay boo xam ne nekk si na ne dama amoon dëkkandoo boo xam ne ràbb la daan liggéey ràbb ay sër ak ay yére nee na fa maata fa raaytuhu fil manaam mu faatu ma gis ko ci gént fa qultu lahu maa faala allahu bika waaye yow lu la yàlla def mu ne ma xafara li yàlla baal na ko ma ne ko fa bi ma zalika waaw yow lu la yàlla baale fa xaala kuntu ida katabtu suma muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabin صليت عليه لأن دما دفما واحد دما ليك يا الله بالما بو ما سال بين دب تير ب بين تور الله عليه وسلم دما يجول تيم مم تيم بين مي دوغ جال يا الله سمر لور ما تفهم بال منك فأعطاني ربي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يا الله جحنا ما دوبل مستجس جحنا ما دوبل مستجس تنا نجيب يولي يوم دون يولي تير سنا بين دريك لما كان yéen ñi miin mbindi Serigne Touba nu ngeen xamee nu ngeen gisee bindum Serigne bi ak salaatu ala da koo fees na ñi nga xam ne dañuy tere jàng xasida na ngeen xam ne aw yiw bu baax la tere na ngeen xam ne seetaan yi la ñuy liggéeyal ndax kuy tere jàng xasida te jàng xasida julli ci yonent bi la feese ak tàgg yonent sallallahu alayhi nga xam ne yàlla da koo tàgg julli ci moom. sëriñ bi loolu la mel tàgg yonent bi ak jullit moom kon ku la tere jàng xasida rek xamal ne mi ngi lay tere yiw bu yaatoo yaatoo yaatu woo war a mën a am yonent nee na amul kenn ci yéen koo xam ne yàlla dina nangu ne ngëmam mat na fi léegi làmbut xolam ba yëg ne maa ko gënal boppam ak ndeyam ak baayam ak nit ñi ñëpp kon lépp luy tax a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fexe ba nit ñi def ko farata kon gàmmu lu am solo la bu dul woon dara sax li li li ko sëñ bi tuddee tuhriji ta'assub tuhriji ta'assub boo ko doon firi ci wàll rek mooy saabu bi raxas di setal gaa yi il zi ta'assub mooy mooy def katu bàkkaar nee na moo koy laal. ndox mi mi nu teg ci kuréel bi di jàng sëriñ bi nee fa fa surbu bil mudahari ya ko fa may tegal mën mi bu la seytaane la jëlee ci sa bopp mbaa bu la jëlee ci sa njaboot mbaa bu la jëlee ci sa jëmm ba lu bon rek ngay xalaat moom ngay bëgg a def nee na na nga naan ci ndox mi mooy comprimé médicament biy faj maladie boobu nga xam ne seytaane da koy sotti ci yow ak pexe yi mu lay fexeel jarul dem ci sëriñu tariya mu lay jox xaaw yoo xam ne da nga koy takk mu lay sonal jërul dem ci koo xam ne da lay fen ne la seytaane ngeen la war a sol te amul fu jaar ba génne ko ndox min teg fi doon jàngee bi ñuy gàmm Serigne Touba nee day fekk fexam fexam seytaan ku ko ci fexe ba am ko ku la kenn sonné la te ci ngelaw da laa dugg ak nangam ak nangam ah. quatre-vingt-dix Serigne yi tariya boo yoo dem boo feebaree mu ne ngeen war a sol dégg ngeen xam nga lu ko waral. benn école su ngeen ne quatre-vingt-dix fenkat seeni fen day niroo moom da ngay dem ci kii mu wax la ko kee wax la ko kee wax la ko nga ne dem naa ci ñu bari diw kii wax na ma kee wax na ma ko yaakaar ne ci dëgg nga ne jàpp ne da ngaa rey goro te fekk da ngaa daje élèves yu bokk école bu ñu leen jàngale fen xam ngeen ci loolu man damaa mas a gis koo xam ne dafa fekk benn malade benn malade mu seetal malade ba ne ko te moom nee na lay def mu seetal malade ba ne feebar bi dañu wér waaw da nga feebar te feebar bi dañu wér daal di koy laaj la mu ko laaj laaj ko am xar koo ko jox ko am xar mu rocceeku ñëw ci man billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ak kaamil bi ma jéem boobu maa ngi fii ba mu dikkee ma dafa am malade boo xam ne dama ko engagé daa feebar nag dama bëggoon mu wér boobu suñ Saliou di dund ci saa yi ma ne ko ni da nga am malade bu feebar te da ko ne dina wér foo gisee ne day wér mu ne ma moo ko ko ma ree yaa ngi dégg fekk billaahi wallaahi tallaahi ci guddi gi guddi gi mu war a ñëw ci man laa génn sama waajur bu góor suñu seex moom mu fee ñu tàllal loxoom nii may jàkkaarloo bàmmeeloom kenn mu ne dina ba may seen waqiit bi seen ñaari kalbu kalbu li ñuy wax xaj ñu buuf ci wet billaahi lazi laa ilaaha illaa boobu maa ngi ma ne ko euh, ma laajoo leen dara mu ne ma laaj naa leen dara ma ne ko demal delloo ko kooku day faatu mu ne ma laaj naa ko ba pare doo fi lekk ma ci am a faaw mu wér waaw man loolu mun ma ci dara dundal ak ak ak ak ak koy def waaye nag sañ na laa woon ne diw day faatu keroog dama mujj teg sama loxo ci si jaada ji ma yor ubbi benn couleur te ko xam nga ne ki ngay wax man xaw ma xaw ma ko gis mu ne waaw ma ne ko mbàjj mu mel nii ko yaay ko demal delloo leen lañ la jox mu insisté ma ne ko lenn de laa xam nga dem Touba ci Serigne Saliou moom yàlla rus na ko ndax doo gis ni duwaa soo ko demee ne njëkkantoo ku jox la ak ñaan nga fexe ba balaa àllarba nga ñëw jox ko yàlla mën na la jiw suba du faatu dégg àllarba jam waxoon ne ca lay dellu pour yóbbul ko ñaan bi fa mu toog di defaru pour dem lañ ko fekk ne ko ndaw si faatu na leen moo il faut ñu bàyyee yàlla il faut il faut ñu kennal ko xam ne suñu borom rëy bu lii yàlla nekk mu koy wenn sama bopp de xam nga ko xamal rek yàlla mën naa xëy wan la loo bu egsee nga xam lii la yàlla itam am soxla dem ci ku baax nit ku baax ku seetlu mu ñaanal la lu baax la wala nga ne ko ñaanal ma yàlla mu jéggal la dama koy wax taalibe yu bari léeg-léeg man néew ci nit ñi waxtaan man la nag ma ñaanal su borom jéggal ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digaloon saxaaba yi ne ku ci gisee ku way sunu xarit nan ko wax mu ñaanal la yàlla jéggal la ndax yàlla day nangu ak ñaanal kon dem leen ñaan lu ji yonent sallallahu alayhi wa ko digle woon kon ñaan lu bonul dem ci ab fenkat ak ab tappalekat moo ko Sénégal léegi télé boo taal wala rajo boo taal fekk fa fennkat bu mag a mag a mu fay ca télé ba xaalis wala ca rajo ba xaalis ñu jox ko temps d'antenne boo xam ne dañ ko ko jaay te toog këram di seetaan yaakaar ne kii xam-xam bu wér a tax ñu may ko temps d'antenne boobu fekk da koo jënd fay ka koy introsé fay ca télé ba wala ca rajo ba ñu exposé ko la bëgg a wax. defal ko ay numéro téléphone dof yëpp dem ca moom mu ndax leen lekk li ñu yor dem am ab sant wala ab état sam jaaxal il faut ngeen def attention ci loolu bàyyi leen ci xel émission yu bëri yu ngeen gis ñu koy publicité ci télé ñu naan diw sàngam day faj nangam jëlal numéro bi fekk ko barab sàngam nangam ak nangam. billaahi wallaahi tallaahi genn wàll ay wuyu yu naxaate di lekk xaalisu nit ñi boo yoree lu leer soxlawul ngay dem rajo ba wala télé ba lu leer li ngay def mooy indi ñi ñëw ci yow. man wax bañ ma ne diw sàngam laa jógee ca Mali dafa yor dafa ñëw fii pour faj waa Sénégal ma ne ko Mali mu gën a feebar li mu yor bu ko mënoon Mali lay toog koy dégg di ko fekk Mali kon buñ buñ nax. il faut ngeen yeewu ci ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon pour yee nit ñi ci nax yi ngeen nax libéré leen ci ay caaxaan nan ngay boo xam ne ab néegam la yor def fa bopp yu dee béjjën yu dee der yu ñàngal néeg ba ba mu ñàng ci mbir yoo xam dafa raar ci sa bopp psychologiquement boo ko duggee di pat pati te boo demee mu dajalewaat lépp sol ci saako. yéen a ngi bàyyi xel yooyu yëpp c'est faux ay caaxaan la il faut ngeen yeewu am leen tawxiid bu ngeen amee soxla tàllal yàlla loxo yi ñaan ko mbaa ngeen xool koo xam ne leer na leen ne am na ragal yàlla ngeen dem tàllal mu ñaanal te bi ñu defee métier ba tey ñu bari sonn boo duggee ci réew bi boo duggee ci biir Sénégal. lu ko boo dugg boo bàccee fekk fa naxaatekat boo am ne ma nga yor genn mer gàddoom kooku di nax ña fa ne léegi dañoo am fit sax ba ba nekk naxaatekat di dem ci rajo télé di joxe sa numéro pour nit ñi ñëw ba nax leen loolu c'est grave te pourtant nit ñi ñoo fay dem rang def ab rang pourtant ci télé bi laa ko dégg mu wax nangam ak nangam ak nangam du caagi nag ku feeñ télé rek dafa jub Hmm? man gis naa koo xam ne mu yàggul sonal la nit ñu bari ci damay faj feebar sàngam damay faj feebar sàngam léegi ci nit ñu wit di ci lekk seen alal te feebar boobu moo rey rek ci bàyyam faw ngeen yeewu nit bu feebaree day day ragal loo ko def boo ma ko joxee wér dala koy jox ngir bëgg a wér imaginer dem ci rajo télé joxe sa numéro cent personnes wala mille personnes ñëwandoo sa kër ku ci nekk jox la benn mille francs rek wala benn cinq mille francs nga ak ñu nga dañuy dagg ci ku aajoom fajoo ku aajoom ñëw même bu dee ñetti baat nga koy wax am na ci ñoo xam ne jubati nañ ba bàkku làmbaay bi lay la dem di lay ci kopp mi ñuy daggee bant yooyu di ko jox nii ñu nekk ay karamel yu yu yu yu yu yu yu ni gëjëru di jël di di di di naan maa ngi gisal ji di jàmm ay jamono dañ ci waxtaan ne Mbàkke léeg-léeg ko mu mi tuuti man ko de nan lay nit ñi di su ngeen amee yitte leen seen loxo jàpp ba sell toog kennal yàlla ba pare ñaan ko ko boo dajee sa mbokkum jullit wax ko sa yitte ne ko ñaanal ma mais kantaa koo xam ne da ngay dem mu lay gëmloo ay xërëm moom mu lay gëmloo ne damay luxus xaalis wala damay defar xaalis fay ma nangam ma wax ak rawaan yi ñu génneel la nangam li mu lay wax du dëgg su fekkoon lu mu mën la bu yitte woo nga koy fay nangam yéen a ngi bàyyi xel loolu faw ngeen yeewu ci loolu yonent sallallahu alayhi wa sallam pour nit ñi jub wa laqad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anzalnaa ma'ahum al-kitaaba wal miizaana liyaquuma naasu bil qist yàlla nee na dama yónni yonent yi jox leen téere pour nit ñi jaar ci yoon. ngeen ngeen bàyyi ko xel mu ngi mu ne. yonent bi sallallahu alayhi nee na ki leen gën a mën a am ak jege ci man yowmal xiyaam mooy ki leen gën a bari lu muy julli ci man lu ngeen gën a bari ak julli ci man seeni soxna gën a bari ca àjjana ak seeni dëkkuwaay loolu yonent bi sallallahu moo ko wax loolu moo sabab téere bii borom dalaa'ilul xayraat mu bindoon ko dajale ci ay salaatu ala nabi yu raare yu bëree bëree bëri yoo xam ne da nga koy dégg rek. Serigne Touba bi muy bind jaalibatul maraaxib dafa ne woon toppandoo kii bindoon téere bii dalaa'ilul xayraat ndax téere bi bi mu ko bindee pour wan yàlla da koo nangu ci darajee salaam da ne day seet ndax yàlla nangu na ko mu dem tàmbal ko ci ab teen dem yoon. ba nit moo ko seetee ca teen ba indil ko ko dara sikku ci te boobu mbindum daala nga xam ne li baax li li li ñu baaxoon a gis téere bu tàbbi ci ndox mooy mu yëbbu ba seet wecc ndax encre yi boobu tëj yowoon loolu nangu gi lay teg suñ tubaay bi mu bindee jaali batul mara dem dane damay toppandoo borom jusul yi ci seet ndax yàlla na mën na ko da ko ci géej tubaab yi ñoo ko for ñëw jox ko ko ne ko dafa mel yaa ko moom دينين كن سلام على النبي بجاه أنا بين سلام على النبي بنين ميم ديكو جاك بلوكاري بني وخسرات سعادة موي اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدار ملك الله أبايفا يبقى منه xam nga salaatu boobu lan lay wax ci wolof yàlla yàlla na nga julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam lim bu tolloog sa xam-xam yow yàlla julli boo xam ne day sax ni sa nguur gi saxe dégg ngeen wax loolu benn julli su ko defee te yàlla nangule ko kon ni mu ko waxee loolu mën naa xeet li xeet yonant bi sallallahu te loolu mooy hadis bi ma waxoon ne yonant bi nee na ku julli ci man ajjuma téeméeri yoon yowmal xiyaam buy ñëw dana ànd ak leer goo xam ne buñ ko séddale woon bindeef yëpp ñu am ci te du te du tee mu des laa ilaha illa allahu du morom ndax moom wax na Seydina Ali ne ko mbooleem li yàlla bind wala mbooleem li existé boo ci génnee jëmmi suñu borom muy asamaan ak suuf ak li ci ne lépp suñ ko boole woon yonent yaa walli yaa ñëpp ñu teg laa ilaha illallah ci balance teg leen ci balance laa ilaha illallah moo ko gën a diis. lu ko waral laa ilaha illallah day wax jëm ci kenn yàlla ji waxoon naa leen fii daaw gis ngeen ren li coowul tawhiid ak bokkaale yàlla bari ci réew mi. man li ci ëpp yàlla dafa dogal bala ñoo yeewu ci sëriñu nelaw man lay fekk ma jub naa gaa yi fële la la gaa yi ab jaam day kennal borom boo wéetee nga xam ne yàllaa la moom boo feebaree nga xam ne yàllaa bëgg feebar bi dal la même bu fekkee diw yéene na la ko ba ni dana ci dox pour mu dal la sax na nga xam ne yàlla la neex mu lay soog a dal wante lu neexut yàlla doon dégg ngeen nga xam ne àdduna yàllaa ko bind yàllaa ko moom bind asamaan si ak suuf si ak li ci diggante bi te mbindeef yi moom gi leen yàlla moom bokk ko ak kenn mooy boroom ñëpp mooy ki nga xam ne loo fekk fi barab moo fa def mën naa wut nag li ñuy wax waasita wutal ko ay sabab mu jaarale ko ci diw mbaa mu jaarale ko ci diw ci misaal boo mbéyoon nit bu lex bi méttee lu waral métier bi mbéj mi ku waral mbéj mi ku bind ki mbéj mbéj mi ndax bu neexuloon yàlla kooku dina juddu ba temps bi muy def mbéj mi ba xel mi dina ci mbéj mi ba muy mbéj mbéj loolu la ñu wax ne iradatullah masalan coobare yàlla bëgg-bëggu yàlla mooy dox ci moom ci baatin ci baatin li yàlla bëgg rek moo am ci baatin laa leen wax waaw waxi waxi ma aarif la wax de ndax nangu ngeen ne lu neexul yàlla am lu yàlla bëggul mu am am bu fekkee yàlla dara mën na koo rëcc ba mën a am te néewu loolu bu boobaa ak man sa di lay tekki te yàlla dafa man loolu tax Sëñ Tuubaa wax ne wa wajaba an al asara li rabbina laysa yakunu lil wara war na nit ki gëm ne effet mu mën a ci yàlla la jóge mais def mu ne كطاعة عباد الله أو عكسه كالسعي في المناهي li am su baaxee ba mel ni jaam bu topp yàlla mbaa mu bon ba mel ni jaam bu nekk ci lu yàlla gërëmul na xam ne loolu lépp bi ilmi rabbina mi ngi amee ci xam-xamu yàlla wa bil irada wal qudrati allati turi ifada mi ngi amee ci xam-xamu yàlla ak kàttanu yàlla ak bëgg-bëgg yàlla dégg ngeen li ma kon adduna da ngay la ba gis ne yàlla dafa ne day def li ñuy xeexale ay xeexale bëri bant xam ngeen li ñu daan wax xeexale nekk ay xale defar sa ñaari bëri bant ne dañuy bëri ban mooy daan tontu laa bëgg a jeex na li neex yàlla moo am ci monde ëllëg yowmal xiyam tam da ngeen a foog ne li ñuy def lépp d' accord waaye ëllëg yowmal xiyam li neex yàlla may am de wa yafalu llahu ma yacha la alquran bu coow li bare lépp bër bu pënd mbirikal yàlla def li ko neex moo tax fii ci àdduna fa aadul li ma yuridu lañ ko gën a xamee yowmal xiyam yafalu llahu ma yacha la ñu koy gën a xam ma yacha jooje ne fa la fa la ñu yemee bu fekkee maayasa la ca neex yàlla mooy kaca kaca moyukaayu yàlla ma ci yafalullaahu maayasa yàlla daal bind na day texe ëllëg day jékki rek daal di soppeeku daal di ñëw ne nii dégg nga yafalullaahu maayasa bi bu fekkee koo xam ne da ko fekkoon ca biir gaañay gaañay baax iraadatullaahi nekk ne da koo texee di day jékki-jékki rek dëpp Hmm? moo tax ñi ngeen gis ñu ne ay taalibey Sëñ Tuubaa lañ woon ba dañoo génn doonatul taalibey Sëñ Tuubaa danoo dem toppi ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ŋàññi Sëñ Tuubaa ak a waa wax ju bon jàpp ne danoo gindiku dañoo déggul xamuñu sax li daw Sëriñ Tuubaa dane li xayri taxaa bil muntaqa kullu si saqa wa yanxu bihi naxwi saidun wa zutuqa ci dara ji yonent yàlla defal na ma képp koo xam ne daa texee di warta damaa jënd moom feneen la jëm fudul man man Ahmad kooku du ànd ak man faaw mu dem fudul fudul man waaye nag dafa teg ne wayantu bihi nahwi saidun wa zutuqa ci dara ji yonent bi la yàlla defee ñi texe ak ñi ragal yàlla dañuy daw jëm ci man ñooñu ci man lañu nuuru dafay daal bi feeñ ak nuuru jàll am na ñoo xam ne moom yàlla moo bind ne dañuy dem àjjana ak lu mën a def am ñoo xam ne yàlla daal bind ne dañuy dem a ak lu mën a def moom ñooñu la yàlla di wax la la du ñu dugg àjjana xataa yelle jël jamalu fii samil xiyaat foofu nag ma tekkil leen tuuti rek lu ndaw xataa yelle jël jamalu fii samil xiyaat dafa am ñu may dégg ñu koy firi. di ko di ko firee loo xam ne bu ma ko déggee ay reetaan la may def maanaam ñoom ñi ngay wax ne ñooñu ay yëfar la ñuy wax ne yàlla mi ngi ne du ñu dugg àjjana booba tànk gileem mënta dugg ci bën bënu puso donc loolu lañ ko firee bu ma ko déggee damay def ay ree parce que damay xam ne ñu ñàkk a dégg luxatul arab ñooy ñooy wax ban la gileem am ak puso ma déggee sëriñ bu koy firee firi gileem xajul ci bët bëtu puso ay ree la may def ci lay xamee ne ku ñàkk niveau mooy wax lu ko arab yi da dul caaxaan dafa am buum gu ñuy wax jamal buum buum gu ñuy wax jamal mooy buum nga wax ne bar la ko wolof di wax bar ñiy gas ay teen bokkul ak goj de goj mooy bi ngay jukkee ndox bar mooy bi ngay jukkee bu ñuy gas teen bi di tibb ci biir suuf si ñu koy lonkee loolu di xëccee muy génn buum googu la wax bar buum bu tijji tijji lay doon boo demee xool am na buum yu rëy yu ñuy yeewee bato yu mag buum googu moo tudd jamal ci arab xam nga puso booy nas wëñ ngay nas wëñ ak buum googu noonu demee xam nga wëñ googu moom léegi nag buum googu lay wax ne nag hmm? buum googu ni ni ni ni ni dugg ci bën bënu puso bi ngay ñawee sa tubay ni mu ko tëyee nee na yéefar yi noonu la leen dugg àjjana ñu tëye nga xam ne arab alxuraan ci làngu arab la wàcc yàlla bu demoon bay wax xataa yali jël jamalu bi samel xiyaam ñu yaakaar ne jamal bi tekki gëléem bu boobaa dañuy wax ne yàlla est-ce que li muy wax ànd ak xel mais buum gële la yàlla de wax moo tax man am na ñu ma dégg ñuy woote maarifa ba bi ñu duggee ci fii lu mel noonu fii ko euh, euh, gile ba léegi bu ma ci xalaatee daf may jaaxal daf may jaaxal euh, li ñu wax adamu fahmi a arab ñàkk dégg langage ba pare di ci dégg naa nag ay ay ay ay nit yu bari yuy woote maarifa di ko firee noonu ay leen la ma leen sax kon maarifatu billaahi da dutti caaxaan maarifatu billaahi du leçon buñ lay sax yaa ngi dégg du leçon buñ lay sax nga koy mokkal di ko tari ba boo demee da ngay dem ñu ne demal sawaay sala ko nga di ko tari déedéet da ngay ne ci yàlla kennal ko di ko jaamu bari looy tudd yàlla sellal sa digganteeg yàlla ba leeru maarifatu billahi jaxasoo ak sa damir boo waxee muy feeñ ci sa làmmiñ boo jëfee muy feeñ ci sa jëfin wante du ay texte yu lay bindal nga mokkal ko di ko tari su doonoon ay texte yu ñuy bind ñu koy mokkal di ko tari di ngeen dégg téere buñ boo xam ne dafa am ay darsu maarifa yoo xam ne dañ koo bind pour dañ koy mokkal loolu mooy xam ci yàlla ñu bàyyi nag dañ naan maarifat bi ma xam yàlla déedéet yàlla kenn du ko xam dañ ciy xam li nga ciy xam mooy li mu jàngal ay yonentam ñu jàngal la ko nga ñëw pratique ko leneen lu mu ci doon ay théorie lay doon te maarifatu billaahi daf laa war a yóbbu ci tawxiid ci kenn yàlla la la war a yóbbu waaye waru laa yóbbu ci dellu ci bokkaal yàlla wala ngay gëm li ñuy wax wexdatul wujud wexdatul wujud ku ko gëm rek da ngay li ci dugg mooy ñi dem ba xam ne dañuy jógloo ne yow yàlla nga parce que yàllaa la sàkk bëgg-bëgg yàllaa tax nga exister d'abord d'accord wante taxul yow nga yàlla bu dee bu dee yow yàlla nga yàlla dina digal nga jaamu ko mooy kat bu dee yow yàlla nga. yàlla bi la digal nga jaamu ko mooy kan kon lu lu prophète di di wut si ci yow kon ki nga xam ne li mu lay woowee ne maarifa lay def ci yow fa muy yow mooy mu gëm bi lépp a booloo di yàlla bu rëy loolu mooy wahdatul wujud te majeure partie ma foofu lañuy ñuy mujj ak doomu aadama bi leen bi ñu yóbbu dégg al maarif muy ay ay xam-xam yoo xam ne dañuy xam ne yii xam-xam yi leer la yu bàyyeekoo ci yàlla jaamu yàlla ba sa dënn leer te jaamu ko yàlla rekk tax moo koy may waaye bu loo ne ay leçon la yu lay sax nga nekk di weranteeg say morom naan sa morom yow yàlla fan la féetee mu naan la yàlla amul place nangam nangam loolu du maarifa ay werante la dégg ngeen damay bañ ku leen dugal ci gaamu werante yooyu ay werante la rek mais du maarifa su fekkee sa maarifa ci sirku la la jëmee sa maarifa amul njëriñ ndax yàlla dafa wax yonti sallallahu alayhi wa sallam la in asrakta la yaxbatanna amaluka soo ma bokkaalee li nga defoon lépp ma ajaloon la ko ci kaw nangul la ko dama koy waddal ci suuf wan la ni bëggatuma kon lu seen laa ilaaha illallah ji bari bari lu jaamu gi bari bari su àndee bokkaale yàlla égal zéro yendoo jaamu yàlla suba ba ngoon fanaane koo bokkaale yàlla effacé la nga defoon bokkaale yàlla seulement ak ñàkk a respecté yoonu salaa salaam rek mooy loo xam ne day fekk lu baax la nga defoon mu fal nga ñàpp ndax yoonu salaa salaam yàlla dafa xool saxaaba yi ne leen laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum laa tash'urun bu leen wax ak yonent bi ca kaw ñi ngeen di waxe ak seen morom bu ngeen ko defé lu baax li ngeen defon day mel ni lu jek jek ci wat du ngeen ñàkku te bu ngeen ko yé kon ndekete ñàkkee wor na yonent bi salaa sallam day waral sa jëf ju baax yalla ne effacé na ndekete bokkaale yalla itam day tax sa jëf ju baax yalla ne effacer na même yonenti sax yalla nee na mënu leen a baal bokkaale yalla dani law asraku la xabita anhum ma sanao suñu ma bokkaale woon la jëfoon lépp wadd ci suuf ma ne bëgg tuub ne yonent bi yow tam nag la ku toll ni yonent bi ak fi ko yàlla teg ba boo jullee ci moom mu defal la lii lépp ba noppi ne ko boo ma bokkaalee loo ma mës a jëfal ma sànni ko génn ci bëgg a tuub egg kon beneen sëñ Koso wala yàlla sax nga wax kon li nu sëñ Tuubaa jàngaloon muy jëm ci yàlla te tegu ci tawxiid dañ ko war a dañ ko war a respecté bi nee na ad'u ilal ilaahi bi damay woote jëme ci yàlla ci kennal yàlla wal fiqhi wa tasawuf majid ak xam-xamu fiq ak xam-xamu tasawuf bu sell kon tawxiid kennal yàlla la sëñ Tuubaa jiital dégg ngeen saa su ne dama leen di wax bu leen nangu mukk ñu ne diw sàngam bu aaloo danaan nangam nangam amul al ju dëggu joo xam ne bu dëggoo ba weer da nga naan diw yàlla la kooku du aal ay tappale la dama bëgg ngeen yeewu am na yoo xam ne du ay aal ay caaxaan la dama bëgg ngeen jëfandikoo seen xel yi gis ngeen Serigne Touba dane suñu borom washab li dahra bi annaka lii min siwaaka wan nabi baadu ahab yonent bi salaa sallam sax da koo jox palaasam yemale ko fa dane yàlla seedeel ma ko yonent bi salaa sallam defal mu wax ko bi teewoon ma bokk yàlla dem ci bi waxee lay jàngale suñ tubaa da ne demal ci demal loolu daal di ko fekk wasaat lii dahra yàlla seedeel na ma faaw ne bi annaka al ahabu laa gën a bëgg lii min siwaaka yow laa gën a bëgg ku dul yow wan nabi baadu ahabu boo jàllee Muhammad salaa sallam laa gën a bëgg leçon boobu mooy bi suñ tubaa jàngale boobu rek leen mooy suñu leçon du leneen jiital yàlla teg ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam teg ci Serigne Touba mbaa beneen Serigne buy sëb Serigne Yaxam mais yàlla yàllaam gi moom bokk koog kenn nguuram gi bokk koog kenn du ndey kenn du bàyyi kenn du maami kenn buur la boo xam ne lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ci loolu nag maa ngi leen di sant bu baax di si karkat yi ñu ngi sant bu baax a baax gan yi mboolem ñi teew. yéen ñëpp maa ngi kontaan ci seen teewaay di ci am mbégte bu baax a baax Abdallah tuddal na ma ñëpp may sant ñi nga xam ne dañoo jël seen alal nag def ko ci bis bi jàppaleel ma daal mboolem fu ci waaye nekk te jël sa alal def ko ci jàppaleel ma waa daara ji ci gàmmu rek na nga xam ne sant naa la bu baax Ousmane Mbaye fu mu nekk bu fekkee mi ngi déglu sama kàddu na xam ne sant naa ko bu baax ndax daf may yónnee ay xéewal yu bare def ko ci gàmmu gi ma jox la ko Abdallah mi doomam laa ko joxoon pour mu indi ko defal leen ko ci gàmmu gi kon loolu faaw moo fësal cant boobu santaale mbooleem ñi nga xam ne def na ko xëy na dinañ ma rendre ñi nga xam ne ñoo ko def ñëpp hmm? jarkat waaw kay wax nañ ma ne am na ku tudd Ndiaga moom moo leen jox animation maa ngi koy ñaanal yàlla yokk ko kawel ko jëf ju ci waay jëf daal da nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man dafa fekk ne lu nekk faaw suñu borom wutal ko njiit wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom lépp moom lan maase defal jëf ji yëpp bu ko defee dañoo nekk ci am réew te soxla stabilité soxla jàmm ci réew mi soxla dal ci réew mi dal googu bokk na ci li ñu koy may mooy état bi mu dimbali ñu ci ni ñu ci état bi di dimbalee bokk na ci muy mu yokk sécurité ba pare ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi mbaa ñu nekk bitim réew yëkkati kàddu yu mën a taal am réew état xàmmee leen li jëm ci leen rawatina nga xam ne ñi ngi ci ginnaaw réseaux sociaux yi di wax ne ahlu sunna lañ ahlu quraan wa sunna ñooy waa alquran waa sunna te te ay groupe lañ créé yoo xam ne jiw ak wax ci kus nit lañ fa nekke ak a bonal ay nit yu ashadu an laa ñu di leen wooyee ay yéefa ñooñu ay vidéo yu dul jeex def nañ ko ci internet bi di attaqué ñu baax ñi nga ne lu de daj nañ ko ci lislaam ba lislaam taxaw faaw ngeen faroo loolu ngeen bàyyi ko xel ay nit lañu yoo xam ne nañuy waxee bu leen ci ñi ci tasoo fekkee Sénégal mën naa tax loolu waxoon naa ko maa ngi interpellé état mu bàyyi xel bu baax a baax terroriste bu nekkul ku jëli bomb dong mooy terroriste mais kuy wax kàddu goo xam ne mën naa taal fitna terroriste la kàddu gu mën a taal réew képp ku koy yëkkati dañ laa war a tëj kafa kon maa ngi wax ne nguuru Sénégal na bàyyi xel ñi nga xam ne dañ leen a ngembe ca biti ñu ñëw bonal mbooleem ku fi nekk képp ku nekk ci façon rek ñoom nee nañ ab yéefar nga dafay bokkaale yàlla jàpp nañ ne dañ laa war a rey loolu garaaw na de ana ci yéen kan moo nanguwul ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah amu ci ñun ñëpp saxit naa am laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kan moo nu woy ab yéefar am na ñoo xam ne ñu ngi ci internet bii di mu woy ay yéefar am nañ ci dëkk ci dëkk bi nag ay école ak ay lu ne bu yàggul dégg nga kàddu yu ñaaw yi ñu yëkkati jëme ko sëñ Moustapha xam ne bu baax ne sëñ Muntaxa day nitu jàmm rek wante ku yilif mbooloo mu toll yoon mooy ku taxaw di ko insulté bu dutoo nag mba ak mbaaxam yow leneen la ñuy wax ci yow am na fi koo xam ne ne ba ñu waxee ne day saaga njiitu réew bi fexe nañ ba ñuy ni ko Sénégal kon nag ñi làqatu ci internet bi ci ay réew di saaga sëriñ bi ak a saaga ñu baax ñi nga xam ne fu mu nekk ci diine lislaam ñoo ma bëgg na nguuru Sénégal li jëm ci leen ak ambassade réew ya ñu nekk te te lu mën a nekk la ndax làqatu ci barab di saaga kilifa jàmbur su fekkee bi def na ko jëm réew am jàmbur. dama japp ne sa nguuru réew da la porté wul plainte waaye sa nguuru réew bu la porté plainte ndax da ngay insulte Serigne Touba réew ma nga nekk danañ danañ def lañ war a def loolu daal maa koy fàttali nguuru Sénégal te yaakaar naa ne président de la république bëgg na jàmmi réew mi ministre de l' intérieur bëgg na force uh, ministre de la justice bëgg na mi ngi ci wax wax jàmm nag mooy tax jàmm am ci réew ñi dul wax jàmm nag te di ko jëme ci kilifa jàmm ñooñu war nañoo wax lenn nag laay laay laay laay conseil ñëpp mooy alxuraan dafa am lu ñu digaloon jullit ñi bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy wax yéefar yi di ŋàññi seen yàlla yi ay bant la de ak i tabax waaye yàlla dane laa tasubbu aalihatakum fa yasubbu llaaha adwan bi gayri seen yàlla yooyu ñu tabax sax bu leen leen ŋàññi ndax su ngeen leen ŋàññee ñu ŋàññi yàlla ci ci lu dul xam-xam ekkati yëfar yi seen yàlla yañ tabax sax yàlla da doon bañ jullit yi ŋàññi leen nan la ay jullit mën a jóge taxaw ku toll ni Serigne Touba ku toll ni Cheikh Alhaji Ibrahim Maam Abdoulaye ñi nga xam ne nit ñu baax lañ lu ne dañ nañ ko ci diine fu ne samp nañ fa diine ngir mu law amuñu woon vie ñooñee ku mën a taxaw ñëw di wax kàddu yu ñaaw aaye alxuraan boobu sax yàlla doon tere yéefar yi jullit ñi pour ñu wax ñu saaga yàlla yéefar yi doon tabax di ko tuddee ay yàlla segam jullit ñi yàlla leen doon tere sax ay bant sàkkaa saaga say morom jullit te yonent bi salaa salaam ne lépp jullit dafa araam ci ab jullit su xasee seede ne yàlla moom parce que jullit bi dereetam araam na ci moroomum jullitam lekk jël alalam te te te néewu ko araam na ci mbokkum jullitam kon buñ ko jàpp ne nitu tasawuf fii ay muslim kon na lañu wala ay nitu bidaa lañ ba jàpp ne dañ a war a rey su këddikuwoo ci njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ma tëjee fii benn xadis a nii rek boo xam ne yonent bi wa sallam moo ñu ko digal dafa ne laa tasubbul amwaat fa innahum xad madaw yéen bi sallallahu alayhi moo wax de bu leen ñi faatu woon ndax ñoom jóge nañ fi ñooñu ñaata ci suñ kilifa yi jóge woon la di leen wax lu kon ba noppi ne ahlu sunna lañ boo dee ahlu sunna yéen bi sallallahu alayhi wasallam ngay roy da nga def lu sax ñi faatu woon même bu doon la leen wax sax dañ koo defoo te lii wax dafa amul Sëriñ Tuubaa lu nekk daj na ko pour nit ñi nekk ci yàlla. dégg nga lu nekk daj na kon loolu état Sénégal war na cee bàyyi xel renseignements généraux yi déglu sama kàddu nañu jottali loolu nañu ko jottali état Sénégal xam na loolu réew mi dañ fee bëgg jàmm te jàmm jooju fi léegi ngi bàyyi ay nit yoo xam dañuy jëli leneen ñëw indi ko fi di ci jaxase réew jàmm dana jafe gënul kon loolu ñoo koy wax président Macky Sall ñoo ngi koy wax le ministre de l'intérieur ñoo koy wax forces armées ak ministre de la assemblée nationale bi nga xam ne ñoom ñooy def ay tasariya yaakaar naa ñaari ñaari ñaari jëmm bu nu jàkkaarloo kenn di seen kilifa muy état ka mën bu ne état waxal jàmbul ko te wóor na mu Sëriñ xajul ci kenn kon ñi ngi ñaan état Sénégal mu taxawaat bu baax a baax a baax ci jëmm yi nga xam ne seen discours yëpp seen xalaat yëpp su joyee réew mi dana tàkk ni yeneen réew yi tàkke woon ñu naan sunni yi door nañ fii siit yi door nañ fii ñee door nañ fee loolu bëgguñu ko Sénégal Sénégal am na diine am nañ diine ba pare kenn du ñu jàngal lislaam ñu bàyyi ko xel ku ci yor sa mu nekk foo xam ne mu ngi ñëw naa la kooka nee na màggal Tuubaa dafa xaraam màggal nangam nangam waaye boo nga teel wax ak moom danañ sol ci bopp bi leneen loo xam ne su noppee léegi mu ñëw dana bàyyi yow yëfal bu yàggul am na am na fi bokk mu ñuy wax Assane Assane Ndiaye ak Ousseynou kenn ci nuyu dama léegi maa seen doom mas naa ñëw ci man ñu nekk ci waajtaayu màggal Tuubaa mu ne ma ki koy jàngal fii dafa ne màggal Tuubaa amul benn solo. lu ngeen di wut ci Touba man maa yónnee ca Assane wala Ousseynou wax doomam ne ko soo demee neel sa baay sëñ ko soo nee foofu moo fa demaat ndax ka fa ne dafa bañ Serigne Touba. bàyyi leen xel personne yooyu bu baax loolu daal mooy kàddu kon ñi war a zikar nañ ñëw ñu tàmbali. maa ngi leen di baalu àq nag bu baax ndax wax ji gudd na te jëluma sax décision wax waaye dama bëgg rek lu dundalee guddi gi lu méngoo ak borom guddi gi loolu rek laa ci jublu Serigne Mbaye waxtaan wi am na solo Pape Sène jërëjëf dégg naa ci yéen bu baax Serigne Moustapha ñu ngi santaan bu baax suñu way juri soxna diko jajeufal bu baax di sàpp ngeen ñaanalal ñu ko suñu borom sàmm bu te yagal ko fi bu baax di nuyu mbolem soxna yi ñu andal suñu ñaari soxna yi soxna nangu soxna say nangu ak soxna ben mu ngi ni soxna aminta ak soxna soxna awa jiw soxna awa wax nañu mel ne nga lool ma ngi lay sant bu baax ci sa taxaway soxna Ndeye Soxna maa ngi lay sant bu baax ci teewaay bi Touba mu ngi sori na marché bu gën yéen ñëpp maa ngi leen di sant soxna Fanta kontaan naa ci yéen bu baax waaw yéen moom seen teew ci bi lu lu lu jaadu la ndax seen waajur bu jigéen bi moom mooy fondatrice kon kenn mënu ko fàtte loolu daal mooy maa ngi leen di baalu àq di am mbégte bu baax ci diwaan bi ci seen sikkar yi ak ñi ngeen koy taxawale kontaan naa lool bi may ñëw yëg naa ne namoon ngeen sama jëm waaye man it namoon naa seen jëm yëg ne am ngeen cofeel ci sama jëm waaye man am naa cofeel la seen yàlla ci yàlla gën a boole soo yàlla ñu yàlla boole ci ñi muy wax yuhibbuhum wa yuhibbunahu dañuy bëgg yàlla yàlla bëgg leen ñu nekk ci iradatullahi wal himma duñ am wenn tur bu dul nekk eh, ay eh, julit nekk eh, ay murid bu ngeen amee weneen tur bu mën a doon da ngeen tudd ay bëgg yàlla ndax mooy muridullahi bëgg yàlla lay teg dinaa gis Ibrahima Diouf di ko bind ci xur bi bëgg yàlla loolu kontaan naa ci loolu lu ko neex nah, la waaw allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam ñu ngi ñaan réew mi jàmm am fi bu baax a baax dal am fi bu baax a baax élection yi ñuy dëgmal it ngeen ànd ci ak jàmm ak sago ak daal te te te te ku ci nekk nga jàpp la que ne sa borom doomi réew mi la nga xoolee ko ne sama doomi réew la yéen a ko jaamu te te ñaanal nañ ko yàgg def yal nañ ko def ay déwén yu bari noo ngi tawassul ci màggu gi yàlla daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraje mbooleem ñi yàlla may daraje jëral leen mbooleem ñi yàlla bég ci ñoom ci guddi gi ak guddi yi ko jiitu di ñaan yàlla jéggal lu may nu fekk déwén may ñu ay xéewal feebar bi ak jàngoro yi fi ne yëpp mu dindi ko baaxal ñu jubal ñu kontaan naa ci njàng mi baax waa Muxlisa bég naa ci njàng mi bég ci zikar si yéen zikarkat yi yorin Abdallah jottalil ma samay cant ci mbooleem waa diwaan Tahfatul Mutadarain ngeen xamal leen ni bég naa ci ñun allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim damay toog nag déglu zikar si man maa ngi leen di nuyu. waaw sant nañ ñëpp nag ku dégg turam ak ku déggul turam soxna Ami sant nañ ñëpp ku dégg turam ak ku déggul turam waaw.